bis bi dafay mel ni rek bisu la boo xam ne daal dongo yi doon jànge ci école bi xëy na ñoo am lu ñu yëg-yëg ci suñu diggante ñoom ba ne dañuy def bis bi mel nii ngir sargale ko biñ koy xalaat sax waxoon nañ dañoo def sargal équipe ñoom ñun dañoo fas yéene jàngalekat bu nekk ñu defal ko lu mel nii loolu nag di lu rëy ci suñu xol loo xam ne nii yëg nañ ko bu baax a baax moo tax bis la boo ñu rafet lu lool santaat xale yi jël initiative cant gu wërëwër ñaanal leen baax a baax sunu borom gën leen defal tawféex lépp nag ñu delloo ko rek ci sant sunu borom subhaanahu taalaa taala ndax ni ñu ko waxee léegi jotaay bi rek mooy nit ki lépp lu muy sonn bu àndut taw feex sunu borom la muy njëkk rek ci mooy coono ba mu doon def. te wax nañ Cheikh Abdou Khadir daana wax naan man xawma jàmbaar ku nu dimbale laa xam kon lépp lu fi am rek ba nit di ko rafetlu rek dañuy delloo lépp ci sunu borom subhaanahu wa taala gën koo sant. te sunu borom moo ne ku sant ma dolli la moo tax ñu koy joyal cant gi jëme ci moom dellu santaat Serigne Touba tam bu baax a baax ci taw tawféex jum ñu defal ba boole ñu ci boppam ba liggéey bi ñu mën ko fay joxe sant Cheikh Mamadou Moutada mii cosaanu liggéey bi waaye nag delloo njukkal bu baax sëñ Mamor mi nga xam ne ni barab bi fi ko sëñ Mourtala bàyyi woon muy azar ci boppam mën na wax ne lu nekk yokk na ko ñett ba ñeenti yoon ci farloom ak ci takkoom ak ci xër ci toppatoo xale yi mooy xam ngeen ni barab comme dañu ko dénk 2008 ba léegi ñu fiy liggéey léeg-léegi ñu fësal résultat yi ñuy def dana tax ñi ñu ko dénk xam ne ñu ngi ciy farlu tuuti équipe dana tax ñu gën a xam ne li ñuy liggéey nit ñi ñu ngi koy gis fesal ko ba xam ne équipe pédagogique bi fi nekk leen war lépp ñu ngi koy def moo tax résultats yi ñu am daana ràññiku naka jekk waaye ren ji wax dëgg yàlla gën naa ràññiku ndax bu nu xoolee CFE bi nga xam ne nii maanaam présenté woon nañ 127 candidats bu ñu xoolee cent vides yi am nañ seen certificat kon mën nañu wax ne mën nañu am 85 pour cent jëm kam jëm kaw te ñu ngi yaakaar ne entrance moom ñëpp koy am cent pour cent lay doon bu nu ñëwee ci BFM bi moom it résultat yi mel noonu lañ ci def 63 candidats lañ présenté woon 46 yi dañoo jàll d'office 10 yi jàll deuxième tour boo ko xoolee muy 56 bu ko defee 56 ci fi ñu 63 yi 56 yi jàll nañ am nañ seen BFM bu ko defee ñoom it def nañ résultat wu 88 virgule 88 pour cent ci taux de réussite bi mooy am solo. te boo xoolee ki jël premier ci centre bi muy Mbacke Xebar 1 sunu élève la mi nga am moyenne 17 virgule 47 muy moyenne boo xam yaakaar naa ne ci moyenne yi gën a baax ci BFM Sénégal ci lay bokk ci centre boobu tu ñu bàyyi xel ci ne 15 premières yi yëpp ñaari nit ñoo ci rax école Serigne Mbacké Bousso loolu di jalooro joo xam ne ni école bi def na ko boo ñëwee CFEE bi ma weesoon léegi bu ñu xoolee 10 yi gën a kawe ci région de Diourbel yëpp 10 élèves 10 meilleurs élèves yi ci CFEE bi ñun ci ñaari élèves benn bu góor ak benn bu jigéen Yacine Fall mooy suñu élève jigéen boobu bu nu xoolee élèves yi doon def ci région Diourbel yëpp ñu nu présenté woon ci franco arabe bi moom moo jël paie bu ñu xoolee département Bambey Diourbel ak Mbacké Yacine Fall moom moo jël paie bu nu xoolee certificat bépp maanaam région Diourbel bu ñu boolee français beeg franco arabe ak yëpp moom troisième lay jël bokk góor ñi jigéen ñi bu ñu boole. kon loolu itam liggéey boo xam ne nii mi ngi am ci biir école bu nu ñëwee ci bac bi résultat bu mel noonu lañ def ndax bu nu xoolee bac LAR. mooy bac arabo islamique bi nga xam ne ni njàngum arab mi ci la gën a fese mooy seen dominante bu ñu xoolee 47 candidats la ñu amoon 43 yëpp génn nañ ci kon ñu ngi ci 91 virgule nangam pour cent ci taux de réussite bi. moom it boo xoolee centre yi ñu doon defee examen muy Gaynde Fatma muy Serigne Bassirou fu ci nekk ñu ñëw fa jël paie ak massion très bien kon am nañ ñetti mention très bien am ay 5 mention bien ak lu mat ay 8 mention bien ak 14 mention assez bien ci bac LAR bi. muy bac bi nga xam mooy bac arabo islamique bi ren nag am ci lu bees loo xam ne nii dan koo sosoon mooy bi ñu indee fii ci école bi 2008 2009 année scolaire bi ci njëkk danoo xalaatoon ne vision bi suñ moor am ci former nit koo xam ne nii day man lépp day walaabal ci diine ji walaabal ci geneen gi ci des xam ne goo ko laal mu mane fa vision boobu lañ doon jéem a jëmmal taxoon ñu ne nañ adapté programme franco arabe bi loolu ci lañ liggéey ba 2018 ci lañ njëkk a génne BFM bi daal leen ubbi lycée bi ci xaayira lycée boobu boo fa demee da nga koy fekk série S danga nga ko fekk série l série S1 S2 am na fa l am na fa incha allah LA dafay am L dafay am yëpp ñu ko fay def foofa tam ñu gis ne xale yi fa nekk farlu guñ farlu ak équipe ba fa nekk moom itam def nañu ay résultats yu am solo bu ñu xoolee série S nga xam ne bokk nañ série yi gën a jafe Sénégal moom amoon nañ ci 18 candidats 12 yëpp am nañ seen bac. mu des ñett amut te biir douze yooyu am nañ ci benn massion très bien muy lu raar ci série scientifique am ci trois massion bien am ci cinq massion assez bien ci seeri S bi. loolu itam di jàllal jox defañ ko ba noppi itam première du centre am nañ ko ñaari centre ñoon defee muy bi nekk ci. Sëñ Bas Sëñ Bassirou ak Mamor Diarra centre Mamor jaar ñoo fa jël paie ak ma ak élève bu ñuy wax Maxtaar mu am mention très bien boo demee centre Sëñ Bassirou moom ñoo fa jël paie ci série S bi. ci ku ñu wax amin Diop moom it am mention bien kon am nañ ci 3 mention bien ak cinq mention assez bien ak li ci topp. bu dee série L2 bi daal candidats lañ présenté woon 11 yëpp am nañ seen seen kon loolu liggéey la boo xam ne nii maanaam équipe bi liggéey na ko ñu bëggoon ko fesalaale ci bis bi moom it dellu sant équipe bi yëpp nag ndax xam nañu seen liggéey la. waaye bu doon loolu kenn nit mënu koo def ñaar nit mënuñ ko def équipe bu tëkk équipe bu takk bu suudewu moom moo mën a def liggéey bi mel kon daal bis soññee la woon ak jokkalante ay teraanga noo ngi sant bu baax a baax nag élèves yi nga xam ñoo njëkk xalaat bis bi waaye itam kilifa yi nga xam ne ni bi ko xale xalaatee jox leen ko ñeeblu wuñ ko xeebuñu ko maanaam yëpp maanaam sabentaluñ ko lépp luñ ci war taxaw nañ ko ci ci gën jaa rafet anam.